damay remercier bu les populations Je remercie fal ak remercier population populations de yëpp l'autorité administrative le sous-préfet de l'arrondissement de Karaï et son équipe qui sont venus procéder à l'installation du maire que je suis, mais également participer au processus d'élection des huit adjoints au maire que voici élus tout à l'heure de manière démocratique en respectant la parité. je voudrais remercier tout le conseil municipal élection Mungi je suis désormais le maire de la commune et non le maire d'une partie de la commune de je veux être je veux être devenu le maire qui sera à égale distance de l'ensemble des quartiers que compose la commune de Mao. Je considère que être élu maire n'est pas un privilège, mais un sacerdoce. Comme une Billeur C'est pourquoi je tends la main à toutes les forces vives de la commune. Que ku yaakaar am nga xam-xam am Bita, Bouyoubore et bi tax bu ñu suñu doole dañuy commune de Mao, ci émergence benn millimètre carré benn millimètre carré soxlawuma ko boo xam ne askan wee ko moom et je vous prends à témoin yéen ñi fi nekk ñëpp pour prendre témoin bu soobee yàlla dama bëgg bu ma defee cinq ans yi ma ñëw ba ci yéen ma ne leen lii la yàlla dogal lii laa liggéey ci kattanu yàlla je ne suis pas dinaa ko wax ci wolof li wolof di li tubaab di wax la chasse aux sorcières nekuma ci loolu nekuma ci fayantoo nekuma ci loolu li ma nekk mooy insha allah buñ ma joxee le document de passation li ma fi fekk il faut ma xam lan la mais bu kenn dégg Abdou Karim mu ngi xool maa ngi xool pour xam booy dugg ci néeg da ngay taal bu baax nga xam ngay toog et je vous képp ku am contrat di liggéey fii di nga xëy heure di nga wàcc heure jëmale wu ma ko ci ancienne équipe

muy ñi yore recouvrement mooy ñi nga xam ne xaalis day jaar ci seeni loxo képp koo xam ne boo jëlee dërëm mbaaw billaahi di nga ko digaa rek man <laughs>